Et c'est pourquoi pour les ministres là, comme pour vous citer, si c'est pour les réhabiliter, si on les nomme parce qu'on veut les réhabiliter, si on les nomme parce que dans le cadre de leur fonction antérieure, ils ont eu à rendre des services, c'est pas bon pour le pays parce que le Sénégal a dépassé ça. Parce que c'est des fonctions très sensibles. On a une très grande armée et notre armée n'a jamais été am nañ armée bu mag a mag et suñu armée bi masul divisé wu masul wu li ma doon wax ça ça à Senghor Senghor avait dit boo bëggee armée bu professionnel da ngay recruter say officier fi nga recruter fay magistrat ak ay état civil ay université université officier Sénégal c'est des gens extrêmement bien formés dañuy dem université Dakar comme ñun def bac plus 4 après dem ENOA def 2 ans et c'est pourquoi c'est la colonne vertébrale du pays il faut que armée bi qu'on mette l'armée en dehors des conflits politiques en dehors des conflits politiciens en dehors en dehors de ces questions-là et c'est pourquoi je veux profiter de cette tribune la pour saluer et rendre hommage au général mussa Fall tey ji affaire Rwanda lañ doon wax Rwanda ñu ngi def seen trentenaire ki ki gën a ki ñu célébrer Rwanda aujourd'hui mooy capitaine Mbaye Diagne. le capitaine sénégalais capitaine sénégalais. qui a aujourd'hui une médaille de l'ONU en son nom que Macky Sall tuddee que affaire bi nekkoon boo di marché du port mémorial Mbaye Diagne. Mm-hmm. donc damay wax que depuis presque bi ñu indépendance ba léegi mbay Diagne ak Moussa Fall nos plus grands officiers